pomme de terre mbay mi doon lu cher lool teg ci gaaw yàqu bi ñu sukkandikoo ci jaaykat yi ñu fekk marché Tilène. demewul tàngaay noonu te maanaam te ne bagage moom en tout cas moo ci gën baax ci biini yi boo ko jënd foo nga jaay ko mënoo ko yor deux jours trois jours. benn jour boo ko jaawul dangay ñàkk lu bari xam nga. sac bi doon jaar junni ak juróom benn téeméer léegi ñu ngi koy jaaye sax lu ëpp ñaari junni ak juróom ñetti téeméer. waaw seeraay bi moom euh, jéggi na dayoo moom parce que ni ñu ko doon jëndee avant ak léegi bokkatul. ñu ngi ko doon jëndee kii nu mu tudd bu mu wàccee rek huit mille woon wàccoon les instant yi ñu ngi koy jaayee quinze mille quatorze mille. prix bi taxawul te benn benn lañ koy génne di ko jaay en tout cas lu leen neexee daal quoi. Pa Diagne Fare moom itamit foofu di ñu xamal ana lan moo waral yokkute boobu. Euh, dèjà boo calculé heure bi mu ñoroon yàgg na te boobu léegi dañ koo denc denc boobu nag du ñàkk yàggaay bi mooy tax am lu yàqu loolu sax booy xool dafay indi lu bëri ci prix bi parce que ki koy denc waroon koo jaay denc ko bu demee bu war koo jaay am lu ci yàqu loolu il faut mu calculer waale ko li ci yàqu mu war koo ko. ñu ngi ñaax nguur gi ak baykat yi ñu ñoŋal waxtaan seen biir ba rek utal bile phénomène ay pexe boobaa ñëpp dinañ ci gis seen bopp di jaaykat baykat ba consommateur.